mbokki Sénégal déglu leen ma bu baax ma wax leen ku baax kuy faj fajum cosaan ak a defar produit yu baax kooku la ñuy wax seex borom produit yu baax yi yow miy jigéen wala ngay góor nga feebar feebar bu la jaaxal lool dawal nga seeti seex boo seetee seex mu tàggale ak moom yow mi góor da nga amee néew kattan te mu jaaxal la loolu ba mënoo dara si nekk dawal nga seeti seex sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku demal nga seeti seex ngay góor sa awra ndaw ba munoo si dara yokkum awra kil sutu ko fii fii si Sénégal ngay jigéen bëgg say fes génn ak seeti seex mi ngi ak produit yu boo xam ni bu la ko joxee boo ko si diwee say ans day génn say fes génn say pato cornel génn boo solee baa wala robb sa forme nu fang prise de poids seex moo si aay maanaam nga bëgg a sa poids yaram karaw guy ruus seex moo si aay nga amee hémorroïde wala ndoxum siti moo xam nga amee mauvaise haleine maanaam gémmeñ guy génn xeet ngay jigéen nga bëgg sa jëkkër jox la bopp nopp la lool seex moo si ay wala ngay góor nga bëgg sa jabar nopp la yow mi nga xam ni dangaa amee dere pano demal nga seeti seex nga amee tànk yu miti di la sonal lool tension seex moo si ay jabet seex moo si ay nga amee ngelawul seytaane demal nga seeti seex mu tàggale la ak moo xale buy tiit guddi seex moo si aay ngay góor ñu takk la xala boo seetee seex da koy dind si une minute yow mi nga xam ni dëmb dalaa jàpp seex am na cuuraay boo xam ni bu la ko joxee nga suuroo ko day daal di jëfu ngay jigéen bëgg jëkkër demal nga seeti seex yow mi nga xam ni da ngaa amee prostate boo seetee seex jooni jooni da koy dindi bëñ buy metti seex da lay tàggaleeg moom nga yore asthme wala enzyme bu metti lool wala estomac cet seex da koy dindi nga bëgg a ubbeeku wala nga bëgg a bayre ku la gi sopp la boo seetee seex di tàgg biir buy miti wala bopp buy miti boo seetee seex mu tàggale la ak moom seex a ngi noonu dab seen bànneex ak bëgg ngeen wér rek mooy li koy teel jokkal ak moom si numéro téléphone yii muy 78 116 15 48 wala 78 475 06 06 wala 70 592 93 94 seex a ngi noonu képp ku si jokkoo ak moom moo xam nga bëgg ku la jaay produit bi wala nga bëgg a faju fajum cosaan boo seetee seex mu la ak lépp luy sa jàngoro seex a ngi noonu dab yi tey askan wi rek mooy li koy xabaar yi la leen di baaxee tey si alxamis gi yem ak juróom-ñaari fan ci weex wi ma di leen dalal jàmm daañu leen dikkal ci tolluwaayu dossier ba dox diggante Cheikh Oumar Diagne ak Djibril War ci yaatal gi tontu ko Bekkaay Mbay ci kàddu ya Gaston Mbengue biraloo na jëmale ci moom daañu leen ko baaxee bokk na it ci lu gën a fës xabaar ya daam mboj andi ci ba leen tege woon loxo ak itam la mu teg ci ndoddi commissaire u plateau gi mbirum góor jigéen jibati na ci diwaanu Mbuur daañu ko faram-fàcceek yéen tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxirulaas lëf bàkk ba jëpp daal di leen koy yaatalal mu ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Dakar Buzz dal leen jàmm ci xabaar yi député wu benn Bokk Yaakaar gile di Sira Ndiaye barkeelu na ci coowal Sonko Kadji Sarr di wax ne daal li muy ñaan mooy rek ñu dem ci yoon mu def liggéeyam bu ko defee rek ñu leexal mbir mi noppal sénégalais yi ñeel audio ya nag nee na sénégalais léegi dafa yàqu ndax ay enregistré nit bokkuloon rek ci jikko ya ñu maam yi yaree te loolu la muy laaj moo di ñu yaraat njaboot gi gindi leen ndax internet day yàq nee na nag du dugg ci mbiru ka ñuy dut baaxam ci audio yi ndax moom la wala déet waaye daal euh, nee na day ñaawlu la nit toog ak yow nga di ko enregistré ba tax na daal nañu xoolaat sunu taxawaay euh, li ci des nag euh, mbiru justice la te moom xelam màccu ca ma waral du ca àddu Abdoulaye Dia ak Lamine Sagna ñu ngi nag ci guddi gu bët setagul ndax bu weesoo la ñu leen ràjjee ci l'armée nationale gi daanaka ñetti at ngi ñu ngi kaso dañu leen tegoon loxo di leen toppee association de malfaiteurs vol en réunion avec usage d'armes ci Wafakash l'observateur mi ñu baaxee xabaar fan ak juróom-ñaar ci weeru mars atum 2019 euh, ci bés googule nag soxnaay militaire bi di Abdoulaye Dia dafa wasinoon a fekk jamono yooyee nekk mu tàngoon lool ci moom euh, ndax dafa waroon fay ab bancaire bu yaayam defoon lu ko mooy day tëdd kaso euh, la mu war a génnee ci ngénte la ñëw yokk ci xar mi karaw noonu nag mu dem ca boutique transfert d'argent bu Mbisaan ca West Foire mu laaj ndaw sa ndax day weccee euro kooku ni ko déedéet waaye daal ba mu gisee ndaw sa do nekk ba mu dem rek am xalaat gu doy ne bi di Lamine Sagna euh, moom mi le nag moo njëkkoon dugg laaj ndaw sa ndax day yónnee xaalis Orange Money mu ni ko waaw euh, mu toog nag di xaar yeneen client ya dem ci waxtu yooyu nag a Dia ma doon wuyu wuyu lu téléphone fekk ci ko euh, ba boutique ba wéetee mu jug jubal ca direction ba waaye boobee na leen ba tëj ba ak caabi noonu rek ja tiimale ko fetel ngir mu yebbi comptoir ga ndaw sa di yuuxu ñu bañ rek ñay romb dégg leen Lamine dugal morso rek ci gémmiñ ga ngi ne woon di dajale koppax ga ca tiroir couloir ba ba muy génn nag a daw mu yem ci vigile ba Lamine Sagna mi yoroon feteeli xaritam bi fexe rek bërët ci moom ba topp leen ba ni muy jàppee ja ba ñu ko dégloo nag mu nangu ba gi ba ñu ko taxawalaatee itam dafa àngul lépp moom ja di seetal xarit wi ndax nee na yëguloon li xew dañu ko rewoon rek gunge ma moom itam mu firnde ko di wax ni rek ci téléphone am la newoon takk ay écouteur am ba mu déggee coow la la tëb gis fetel ga mu jël ko di xool rek ndax dañu ko chargé chargé gannaaw ba mu dee ab militaire euh, ci la vigile ba duggee gis ko procureur de la république biral fukki atu kaso ko juróom défense ba euh, di ñaan rek ñu teggi association de malfaiteurs gi ak vol en réunion bi def ko vol kese ci Abdoulaye Dia euh, ñaar fukki fan ci weer wi la ñu daakaat seen atte daanuk perpétuité le ministère public ba biral jëmale ci fukki nit ak benn ya bokk ci fukk ak ñett ya ñuy dut baaxam ci tueur yu Boffa Bayotte ba mu jëlee kàddu nag moom ba Ismaïla Diallo dafa ni peine de mort amul Sénégal moo waral rek mu tëj leen giiru dund na mu di peñooñu nag moo dina ay raykatu nit lañu ndax nee na lu ñu waajal jëm ci yeneen ñaari accusé ya des nag nee ñu tëj leen ñaari atu dong ñel détention illégale d'armes ay avocat wu partie bi di laajal victime bu ne ñaar fukki million ci sunu koppar maître Diogu Ndiaye maître Birahim Gueye maître Demba Siré Bathily ak maître Moustapha Mbaye di rafetlu rek na procès ba tëddee maître Diogu Ndiaye na mu gisee procès ba moo Maître Moustapha Mbaye moom di dut baaxam population Toubacouta agent double la di René Capin Bassène euh, ne daal day servir état ak MFDC avocat wu partie bi di ci dolli naan Omar Ampoy Bodian dafa mës a dëggal la mu bokk rek MFDC ba tax na mu jàpp moom maître ne ñaax ñi le ñoo taxawal kawteef googule maître Demba Ciré Bathily di rafetlu liggéeyu takk der yi ci rek xabaar ya ñu lijjanti yépp ba teg loxo rek ña nekk ci ginnaaw lu ni mel maître Ndoumbe woon ak maître moo di rek ñu yeewi seen client yi di Lansana Badji ak Cheikh Omar Diédiou ah, ma ñu fi taxawal ba ci sax yeneen accusé ya ndax nee nañu leen rek ñu dem xooli seen ay coupable feneen ah, daañu leen baaxeewaat bépp xabaar bu ci wàccaat ay semaine gannaaw dragage ba brèche Ndar ya ni ñu ko xabaar yi xamale ni ki àllarba gi nag ay boor yi 5 heures du matin ah, la ab gaal gu yeboon fukki nit ak juróom a këpp ñaari nit ñàkk nañu ca seen bakkan yeneen ñaari nappkat yi tam réer nañu ba fii nag dégg guñu benn ndombol tànk bu ci àddu ngir wër leen dañu leen toppalaat ñeel dossier wu Sweet Beauté Ousmane Sonko ngi xaar rek doyen des juges mu woolu ko waaye nag ay bësëng yi ab enregistrement audio ñoo dooleeku ci mbir mi bu nu sukkandikoo ci libération kenn ci ay membre yi pôle d'avocat wu Sonko nee na rek ñi ci liggéey rawatina rek ba nga xam ne ni firnde nañu ni baat ba ñu di ca dégg bu Mamour Diallo la donte nangu ñoo rek wax seen stratégie Mamour Diallo ngi ci seen liggéey wi état bu weesoo enregistrement googee nag ay conseil pa mbind ci àpp njege ñaa lay ex directeur des danañu ko jëfandikoo Ndeye Khady Ndiaye may borom salon ba nag yëf ya amee woon déglu nañu ko ba noppi ancien premier ministre guinéen bi di Ibrahima Kassory Fofana ak ancien ministre yu bari taxawal nañu leen ni ki bay démb gi ca cour de répression des infractions économiques et financières ba placé leen sous mandat de dépôt bokk na ci ministre yooyu nag ancien patron des affaires présidentielles néewoon it ministre de la défense docteur Mohamed de l'environnement ba Oye Guilavogui des hydrocarbures ba Jakaria Koulibaly gannaaw ñetti fanu audition placé nañu leen sous mandat de dépôt ca maison centrale de Kaunti ca commune Kaloum la leen di toppee mi ngi yem ak détournement de fonds publics blanchiment d'argent vol ak complicité active dans la dilapidation de deniers publics Euh, parquet ba jël na ndogalu ubbi ab information judiciaire ci coow la dox diggante député bi leen di Djibril War ak secrétaire général kuréelu rassemblement pour la vérité bi Cheikh Oumar Diagne euh, niki noonu bu nu sukkandikoo ci libération maître des poursuites ba dénk na dossier bi magistrat instructeur bu ñaareeli cabinet euh, bu tribunal de grande instance hors classe bu ndakaaru avocat wam maître Khoureychi Ba dëggal na lu ni mel di xam ne ni client wam dana janoog rek magistrat instructeur bi ci ngoon gi Cheikh Oumar Diagne nag ko defeere ba tey tey gilee gannaaw rek ah, ba mu fanaanee ci ay bërëbi commissariat bu plateau ña nga di ko toppee diffamation ak injure publique guddik àllarba ay boori 4 heures du matin la ndawi commissaire Arona Ba bu commissariat wàcc ca Pikine rue ba teg fa loxo rek ab étudiant ak benn jula bu di yëngu ci njaayu ba drogue ah, fekk nañu ci ñoom 1,5 kilogramme ñoom ñi leen ak weeru koor gi sax terewu leen rek di doxal seen jëf yi le ah, yoon di tere takk deri nag dañu fekk jaañ may jula ba ak étudiant ba Diop ñuy tox yàmba niki noonu nag ñu jàpp yóbbu seen i bërëb ba leen yi dégloo nag Diagne mujj na nangu ni ci loolee daal lay yëngu texte rek di leen xamal ni am na stock bu mu bàyyi këram ca rue 10 ñu amalu perquisition ci saa si nag fekk fa sachet boobee def 1,5 kilogramme euh, ci rek waañ wa placé nañu leen en garde à vue di wéyal l'enquête ba waa jile sant Dieng te fësalu ñu turam ay atam a ngi toll ci fanweer ak juróom benn baayam a ngi am rek juróom ñaax fukki at waaye daal dagg-dagg dafa dox seen diggante sax moo di juróomeeli yoon bi kilifa gi di yóbbu doom ji ci yoon doon bu nu sukkandikoo ci avocat bi maître Oumar Sène euh, mbirum ndono moo wundu coow li ndax paa bi daal dafa yorub terrain bu di jar ay millions euh, yeneen doom ya nag di sol jeng mi ci ëpp fit ngir rek mu faat seen baay ñu seddoo ndono la euh, ni ki noonu nag mu daal di guuxal baayam bés bi yëfi di am nag jeng da doon xeex ak kenn ci ay cousinam paa bi dugg ci bëgg ko dóor mu daw baayam topp ko rek jeng jël bant bu rëy nag daal di koy dóor ci boppi papam bi noonu rek paa bi jëli xelam taxu koo neex avocat bi la mu bëgg moo di rek jeng génn kër ga ba noppi rek laaj benn million ñeel dommage ak intérêt procureur bi di wax ni daal jeng wóorul mu ne ak baayam wara rek muy ñaan bi mu tëj ko ñaari atu kaso talaata gii di ñëw la ñu dàkkaat àtteem gannaaw ba ñu di ko toppee coup et blessure volontaire ab diira ngi nag am ku di mbuboo ni mooy Aminata Touré ci réseaux sociaux yi ab kontam daal tijji bind ci Aminata Touré l'officiel di dik jula yi ak ñi yor liggéey bind ko message privé ngir gën leen mën a nax nag dafa jël nataal ya nekk ca compte Mimi Touré dëgg daal di leen koy dugalaat rek ci comptam bi tijji Mimi Touré ci boppam moo xamle lu ni mel ci page Facebook di wax ni rek Aminata Touré moo di compte ba ba mooy wane ni ba nii nag foo compte baa ngay wëy tribunal correctionnel u Ndakaaru dana addu ki tey ci coowal passeport diplomatique ya dossier ba mujj ñu ko woon a ubbi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars ba ñu ko dëgmaloon les échos di ñu xamal ni tudd tey la ñu leen di atte ma nga soxal nag ay agent présidence de la république ak rek bu ministère des affaires étrangères ak tamit ay opérateur économique ba ci ñaari député yi di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñu ngi leen placé woon su mandat de dépôt nag gannaaw ba ñu dindee a seen mbalaanu kiiraay ba nga xam ne ni rek division des investigations criminelles amal na ci l'enquête Dakar Université Club ñooy i xam rek ci Abraham àllarbay démb gi juróom-benni fan ci weer wi la wuy ji boromam nañu ko xamle ci compte Twitter bu club universitaire ba Dakar Buzz ngi koy jàllay mbokkam te koy ñaanal borom bi xaaree ko aljana Bécaye Mbaye mooy àddu ci ñagas-ñagas ga dox digganteem ak Gaston Mbengue muy xamle ni du wax lu ñaaw du def nit lu ñaaw fonk na Sénégalais yàq ku mu mën a doon nee nag bu weesoo loolu amul leneen lu mu mën a wax te lépp lu ko waay wax rek yàlla ngi fi ndax pare la mën a yem na mu ko tënkee moo dina rek li ci kanam raw li gët te moom la danañu ko gis waaye daal du fi toog di wax lu ñaaw bu ëllëgee gàmmu jot mu téye micro ñu di ko duut baaxaam Dame moo yàddu ci jëf ya leen takk der yi def ba ñu leen tegee woon loxo ñoom activiste yi yëpp leen ci woto doon leen sànni ci yi guddi daam nag nee réew mi Macky Sall moomu ko te day dem kii di commissaire plateau bi nag xale la ba tax na ku leen di digal na leen wax rek ñu bàyyi jaay doole bi tamaytu képp ku leen di def loo liggéey jaay doole bi ndax njiitu réew mi i Sall day dem bàyyi leen fii li moo di ay kàdduk daam Juliette Dione moo di ambassadrice u Grande-Bretagne ba ñu yebal Sénégal ngir rek mu teewal leen fii moom la nag mu fi wutu Victoria Billing ci ay kàddoom muy xam leen rek am na te ci la muy war a ñëw Sénégal fii ak ay bés yàkkamti na nag dugg ci dëkk bi gën a dëgëral rek sunu partenariat tënkee ay kàddoom ni à ba ci kanam Sall mile ab artiste di jëfandikoo ñax mu bon mi ngir am inspiration maanaam daal mën di wéyal liggéeyam na mu waree ko yàgg defee waaye nag laas di ñu xamal ni moom Sall dafa ñàkk chance bayam rek ci takk der yu commissaire Abdou Sarr bu police Grand Yoff ñuy jëmal yoon ca HLM Patte d'Oie ñu fekk ci moom yàmba waaye Sall nanguwul joxe rek turu ka koy jaayoo lu ni mel placé nañu ko en garde à vue ba defee rek ko parquet ba ñeel usage de drogue Euh, bu nu sukkandikoo ci laas euh, liggéeykat ya nekk rek ca institution de prévoyance retraite du Sénégal ci gàttal ñu naan ko IPRES dañu nekk rek di ñaxtu euh, loole nag lalu rek ci non respect wu protocole d' accord d' établissement wu 2010 ba direction ba signé woon journal bi woy di xam ne ni rek direction IPRES tàmbali nañu ay réunion de crise ngir wut lu saafara ñaxtu syndicaliste ya journal influence magazine daal dinay fësal classement wu juróom fukki personalité africaine de l'ouest et du nord yi ñu gën a bàyyi xel bu nu sukkandikoo ci Ismaïla Badji may directeur de publication revue ba di écrivain ak équipe am njiitu réewu Sénégal bi di Macky Sall moo di personalité bi gën a influente ci Afrique de l'ouest et du nord ña nga sukkandiku nag ci profilam parcours social ak professionnel am ak itam position bi mu am ci xew-xew yi am rek ci réewam naataangoom bile di Abdel Fattah El Sisi bu Égypte moo ca Euh, kii di Sadio Mané nag ma nga féetee quinzième place naataangoom bi Mohamed Salah toogee vingt et unième place Mohamed Seydi ñaar fukki at benn Malick Ndiaye ñeent fukki at juróom ñeent ñoom ñett ñëpp nag teg nañu leen loxo ca Mbour ba deferee leen parquet ba bu nu sukkandikoo ci libération Mohamed ma dëkk ca quartier 11 novembre ña ko jàpp rek guddik ñaari fan ci weer wi ba placé ko garde à vue ñel acte contre nature ak viol bés boobu leen ak xamle ne daal ah, ah, ba mu demee nag ba ci lëndëm gi ah, mu forcé ba ko gannaaw ngir mu noppi la mu ko def ba ñu ko tegee loxo da doon jéem weddi la mu def mbir maa ngam nag ci waxtu wa takk der yu poste de police yu jàmm gën ca a doon gérer ab dossier bu yéeme loola Malick Ndiaye ak Moustapha Mbeng dañu leen teg loxo gannaaw ba ñu sàkkoo ab gune gu góor gu toll rek ci juróom-ñeenti at dongo mbir maa nga amee Grand tàggat yaram la ñu koy ndar keppee ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi bu nu sukkandikoo ci xabaari sport news africa ba muy tuulee rek danañu toxal kan ba ñu dëg ma loon moo waroon tàmbali ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin atum 2023 ñu ëmb ca kaaf ñi ngi amal ay waxtaan a ngi rek toxal xew-xew ga nee nañu nag ab ndajeb waxtaan dafa amoon ca Doha ñi rek tirage au sort mondial ga ña qualifié ci mondial 2022 bi woote woon rek doon ñaan ñu reporté éliminatoire yi ndax kat da yemook rek jamono yi ñu war a waajalee seen bopp ci jongante gu mag Tunisie ji a tëkk woon na ni rek dana boycotté CAN 2023 bi su kaaf soppiwul calendrier gi ñetti solution la ñu fa biral mu di rek bàyyi ko fi mu nekk toxal ko ba weeru janvier atum wa ila bouclage éliminatoire yi weeru mars atum 2023 jongante ba day am rek juin 2023 njaayub billet d'entrée ca stade Abdoulaye Wade dafa juróon coow ci jongante ba weesu nag doxoon rek diggante gaynde yeeg Égypte niki nag fédération sénégalaise bu football jël na ci ay ni rek danañu def ab communication bu yaatu lool ci rek système mu vente en ligne bi ci kàllaamay nasaraan ak yeneen làkk yépp ngir ñëpp mën a xam naka la ñuy jëndee ticket dëgmal nañu nag ay point de vente ñel billet physique ya mbokk yi lii la ñu andiloon tey ci xabaar fii ci Dakar Buzz di leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës di jaajëfal kinni si di leen jaajëfal di leen jox di daje ëllëg incha allah.